yëfi yëfi xale la. yore ay xiir di ko cawi mag. <laughs> yëfi xale la. dinañ ci jóg xale bàyyi ngeen waxtaan seen biir rek. <laughs> ba dinañ ci jóg maa ko <laughs> maa ko ay ba fan laa jëm ak xale yi ay fu ñu jëm ak xale yi ay fu ñu jëm ak xale yi xiir bi laa yor. ñuy daw. ñuy daw ah nga baal leen. maa ko xale yi ñoo réew rek. mais boo yaa awal ma ab yat foofu li nga yëpp naa la ko def tey seen tiir bi laa jël ngay daw ma la koy mais on l'applaudit quand même i carton xam nga carton dafa yombul Sénégal bëri na star bëri na woykat bëri na ku nekk ak sa style mais tu viens tu sors du lot c'était pas évident voilà on est très content on va te laisser le soin nga nuyoo émission bi nag moom tey balaa jeex. <laughs> à tout moment dama la koy <laughs> tey budul woon ak télé est-ce que man nga couper ma wax ko li ma ko bëgg a wax sama son ngir yàlla couper son bi ngir yàlla ah, waaw ma yow tëjee tëjee sama baat rek moo wax Samba Peuzzi mii li ma ko bëgg a wax dama koy wax tey ndax dañuy gëj a gisee amaana lu ma ko gisaat sax jamono neexul xale yi amuñu jot dañuy tournée dañuy concert te bu bu ñu ibbee yoon yi dégg naa rek day day day dem ay tournée internationale fa la yóbbu xiib bi lii moom ko ko ko dul <laughs> baba ko dul lu ma la wax lu ma leen waxati bu leen ko gëm papa coupé na ma di. yii papa tey dafa occupé. yii temps na aaram yëg na yëg na kii na succès am de. xaaral moo roq jabat ji xaaral moo jabat ji sama jabaru papa. xaaral moo. sama yaay. yaay est-ce <coughs> mon fils il est décroche pas mon père il décroche pas xaaral ma woo chef de quartier Parcelles bi xaaral ma woo Idrissa Ndiaye waaw kay Idda laay woo allo père <laughs> bon comme jotuma kenn Mbaye ak Daba Jaxate dañoo occupé abul problème idée itam talu ba ma ngay jël doole yaasu quartier ba ndax chef de quartier la xam Serigne ñu ngi ci réunion politique. Serigne Serigne Mbacke Ndiaye ba ngay réunion politique te wax dëgg yàlla Papa Ndiaye bale dee na kenn mënu koo woon moom dee na bu yàgg moom bale te wax dëgg la dëgg yàlla rek ndar ndar bi yaayu ma du ma ko dugal ci caaxaan yi <laughs> yooyu du ma ko def léegi Alaaji Malick s'il te plaît texte bi xiir bi laa yor. ñuy daw ñuy daw. maa ngi koy alors Alaaji Malick s'il te waxal ak man nga couper micro bi couper nga sama micro léegi damay dégg. waaw s'il te plaît su ma décompté ba trois nga couper sama micro couper micro ñu nekk ci plateau bi yëpp pour que je puisse reprendre euh, texte su Samba Peuzzi un deux trois. waa TFM ñoo koy bindulu. bi ngay liggéey de ñoom jógaguñu doom. ma compté waat ba trois toog. toog mu Serigne Fallou. Ah, est je te demande s'il te plaît. Ah, de fermer nos micros s'il te plaît. d'accord un trois. merci Sama Peuzzi ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, téléspectateurs yi on te félicite encore c'est un beau tube et t'es un artiste ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu ñi seetaan émission bi di kontaan ci invitation bi di leen wax man la Samba Peuzzi booy géro juddoo jaama gën dëkk jaama gën mhm. màggee jaama gën génnee sama projet ñu koy wax Sénégal Boy yeah you're already know Sénégal Boy for life Sénégal Boy mooy lan mooy sa groupe. non Sénégal Boy mën naa ne man maay Sénégal Boy. ah yaay Sénégal Boy ok man maay Sénégal Boy. c'est bien gars yi dañ la bëgg de gis yow laa gis nga yore xaalis bu bëri. ah foo jëlee xaalis boobu euh, bi mën naa ni sama premier extrait kii bi album bi première série bu ñu defar avant même sortie bi la moom lañ doon jaay 5 millions. 5 millions waaw léegi am ku ko jënd. am na ku ko jënd non bu fekkee bëgg su feeñ ah, la ko dee album bi waaw 6 la ko jëndee. 6 grand la maa ngi koy nuyu de passage parce tamit. mën naan ba ma ba mu ba mu koy jënd sax instant boobu noonu yoruma woon CD bi joxuma ko ko parce que moom nee na le ko mu nekk euh, benn jeune bu am fitu def benn affaire osé publier ne da koy jaay loolu. Mm. tamit loolu tax mu jënd ko en plus daf ko def pour support pour gën xam nga encouragé ñu ko waaw voilà voilà fan la jógee nga génnee sa album toog ne album bi du ma ko génnee nii ñëpp jënd ko premier CD bi 5 5 millions laa koy jaayee. c'était c'était fait par un Wally Seck deful woon lu mel noonu. c'était fait par un artiste à enchère la ko defoon. enchère la naa ne idée bi mu ngi jógee si man ak sama gars yi parce que si man d'abord ak sama gars yi parce que tamit dañu jàpp ni projet bi def nañ def nañ si loolu. lopp mhm. loolu foofu tu vois. en plus dañu man dama jàpp ni man sama énergie positive vibe bu ma génnee loolu ëpp na sax 6 millions ëpp na mhm. xaalis. Mhm. yaa ngi comprendre léegi pour mën a valoriser lu ma liggéey pour ma am si benn satisfaction pour wan gaay yi ni que instant bi nekkuñ di foo xam nga moo tax ma def loolu. parce que xaaru xaaru ma ñu jënd ko xaaru ma ñàkk ko jënd mais ñu xam lu ma gëm quoi. gëm nga sa bopp voilà ñu xam man lu ma gëm ak. mais am na nit yu bëri yu ko critiqué naan kii fu mu teg boppam dafa fuuy dugg na fii génn fii nan ngeen di. ah mais loo loo toojul du kawe ñàkk. critique mënul ñàkk. xajatul si ah, poste man dama jàpp ni que star yow yaa koy gëm ba pare. Mm. su fekkee nga da nga gëm pour man tamit millionnaire wala milliardaire si xel ak si yow. Mm. parce que mën naa kenn xamul lu nekk sa compte man kenn xamul lu nekk sama xel yaa ngi comprendre mm. dama def affaire bi parce que dama ko dama def ko tamit pour tamit wan yenn booy yi di def dara di commencé di woy wala dara ñu gëm ni que mën nga waay tey mën nga nekk fii nii suba nga nga nekk si koñ bi tey ginnaaw suba nga waay ba tabax si tabaxal sa yaay kër wala nga waay ba yóbbu sa sa yaay màq yaay comprendre sa yaay ah mais parce que parce que ku nekk si way yi hmm? si ah, mais parce que fii ku nekk sa yaay la am sa yaay nga am tamit moo sa yaay nga am en plus euh, yaay dafa nekk loom te dafa sori si nit xam hmm. nga parce que tamit man mën naa ni sama yaay ba may commencé hmm. mën naa ni moom Euh, même su fekkee comprendre mu ngi ma doon soutenir xam nga kon tey kon tamit su ma nekkee si affaire bi ba am te ni maa benn retour bu tamit yoon la tamit suy déglu sama son mu si yëpp boppam. dafa métti woon début bi yaa say dafa bañoon nga rap wala. waaye que tamit xam nga nit doomam. Mhm. voilà comprendre comme ñëpp comme yaay yëpp ah. Mhm. mënoo ba mu màgg nga gis benn benn milieu boo xamante ni peut être mën naa ne gisoo si gisoo si am na lu nga ko yéene nga sa doom nekk benn nit boo xamante ni nit yi dañ koy wax waaw bu nekk benn ministre wala leneen wala dara parce que voilà amuñu voilà amuñu culture boo xamante ne nii gëmuñu woon ni que rab nit dina si tekki wala. dina si am comme ça moom lu mu ma yéene woon quoi. cliché rek am gis na ne bëgg naa ko. dafa adapté ak situation bi jàppale ma si te incha allah du ko rëcc. Mm. style Samba que man avant may xam ne da ngay rab sax sa style moo taxoon la doon follow naan ah, loolu si man la même avant may rab. voilà avant may rab su may jàngi. balaa may tëdd d'abord man gars yi dañ doon balaa may ñu xool leçon yi man maa ngi xool lu may. <laughs> <laughs> lii dafa neex. <laughs> moom nga continuer yaa ngi jàng ba léegi. mais arrêté naa def na deux ans trois ans. waaw mhm. allah instant maa si musique bu baax. incha allah am naa si njort bu rafet que ne naa ko yóbbu si sori. c'est euh, bi nga ñëwee yàggul peut-être Samba. yoole yoole xëj na ci ci deux <laughs> ans yu mujj yi lañ la découvrir carrément euh, en tant que tel nga ñëw ci label boo xamante ne itamit euh, fekk nga fa ñoo xamante ni ils se sont déjà fait un nom parce que. ku par exemple euh, reptile euh, automatiquement sa xel dafay dem ci dib dundu gis euh, est-ce que yomboon na pour yow nga mën a imposer wu ba mën a tiire sa épingle du jeu parce que quand léegi moom limite man quand on dit reptile peut-être je pense plus à toi qu'à Dick waaw waaw loolu dañ ciy sant yàlla te tamit. ay ma. <laughs> non ah, léegi dañuy sant yàlla si loolu te tamit pour wax côté reptile. mën naa ni loolu kii la quoi bonus la si man bonus la si man parce que su ma demee ba ñeme tey yàlla ak ñoom la en plus yàlla ak dib la tu vois dib moo ñu may benn moo ñu posé quoi moo ñu indi présenté ñu public bi. ñooy comprendre moo ñu may force force bi nga xamante ni suñu amee fit def affaire yi yu bëri tamit suñu gëmee que affaire bi nañ ko jëlee fi yóbbu ko fii moom moo tax parce que moom tamit dafa am fu mu ko jëlee. nekk du ko yóbbu fa sori. pour man loolu pour man bonus la quoi. le fait ngay nekk ak ay nit yu liggéey da ngay gën a yokk mais rencontre bi nan la demee parce que jël di leen produire naka la bi demee. waaw mën naa Riptine à la base dafa nekkoon sama koñ. Euh, sama bu loolu sama gaale. Mhm. en plus euh, dig dafa doon nekk dafa doon nekk lu bëri. léegi man nag ma demoon fa di def benn son xam foofu lañ tasee mu xamante en plus moom mu film ko mu lu may def. Mhm. dañ commencé jàppante may dem kuréel mu dem sama kër. mën naa ni sama frère la quoi. mais booy booy woy da ngay mel ni dara safu la ci li ngay def daal day mel ni daal. daal daal day mel ni daal yeewu rek mu <laughs> xam nga man man man man ñu ma xam ñëpp nañ man damay bëgg di nekk foom te nit yi dañuy. dañuy positive vibes. Mhm. su may woy di mer soo ko dégloo nga mer. voilà. moo tax su may woy damay bëgg nekk xam nga nekk si sama wut quoi. Mhm. aujourd'hui da ngeen di ci beneen. Euh, je dis ci beneen style euh, démb rek on en parlait ak Exidex avant xëy na on parlait plus de de de rap boo xamante ne rap hardcore lañ doon wax euh, imposé wu c'est vrai que yéen yéen a ngi clash mais euh, ak seen feem quand même ni ngeen koy defee n'empêche que wax ak sa morom dinañ xam ne diw mii kii lay waxal on vous comprend parce que dañ leen di suivre mais tey dañu gis ngeen ngeen ngeen adopté xëy na beneen style est-ce que c'est pour vendre wala parce que gis nañ ni yow par exemple son bi nga xamante ne moom moo di xiir bi euh, sous-imp bi nongoloo la euh, te ñu bëri ci yéen dañ koy def gis nañ euh, son bi nga xamante ne man bokk na ci wayu dip yi gën a cartonné yi ma gën a ne mooy bi mu def ak Bastion et ñaari niveau la yoo xamante ne parlant de musique xëj na yu bokkul aujourd'hui vous parvenez à vous rencontrer pourquoi ce choix waa comme àdduna la rek parce que si looy nekk day avancer day dox tu vois man moom nekkuma di xool lan lan la Sénégalais yi bëgg carrément wala lan moo xew fii wala dara man damay xool li xew mondial mu am au niveau international. loolu laay te boo seetluwee jamono jii nii musique musique moo xew quoi musique xam léegi su ma ñëwee taxaw ma ne man damay rab kese kese kese peut-être fu mu bëgg egg du ma ko egg te tamit man nu ma jàppee rap bokk rap pour man kii la quoi manière la mën nañ teg son mbalax nga rab si gars yi bëri ñu fàtte loolu mën nañ teg salsa nga rap si manière bi ngay def loolu mooy rab. Mhm. donc gisuma benn problème ñu war a def son ak mbalaxmaani wala ñu war a def son ak ak ay ñuy def ay ngoyaan wala dara tu vois parce que pour pour man suñuy def loolu rek day gën a ubbeeku waaw ñoom esprit bu positif quoi mm-hmm. ñu xool na la ñuy def ba affaire bi génn pour man liggéey da ngeen di sañ seen fashion way voilà da ngeen xool lay avancé avant de jëngal yu rëy ngeen daan sol tak ay ceen ak Timberland mu tàng nga dem Timberland tàngaay bi dina léegi da yow ay pyjama ngay sol ah mais parce que sama génération pyjama la ñuy sol <laughs> c'est vrai en plus album 17 titres gis nañ ci euh, euh, buzz nombre bi ak euh, Ndaga aussi nga xëcc woyu bu yàgg boo xamante ne yaakaar naa ne sa woy mag na la mag na ñu nga dugal ko si yeneen titres yi ban style lañ ci am. ah album mën naa ko classé afro pop. yeah parce que mënu ma ñëw man album bi rap la mën naa classé afro pop parce que am na rap. afro pop mais afro bii di genre moo si ëpp quoi musicalité bi moo gën a génn. Mm-hmm. parce que dama jàpp ni soo ñëwee si benn milieu. xam nga gars yi di def gars yi bi def même chose pas même chose mais soo dégluwee projet yu bëri même même kii bi la am même direction bi. Mhm. alors que man déjà dama ñëw gars yi di gis benn différence. Mhm. kon man tamit foog ma indi beneen différence ci sama projet. en plus projet bi man la quoi Sénégal mhm. booy. moo tax ma gën a job ci musicalité bi jéem a xool yenn sonorités yoo xam te ne nii. di nga ko mën a teg fu nekk du Sénégal kese di a teg fu nekk. comment vous faites pour am ay 17 titres yéen nit yi. Mhm. dañuy woy ay 7 ay 6 ay 8. ay vous êtes très inspiré ay 17 ay 20 titres ngeen di mhm. euh, comment ça se fait vous écrivez sur combien de temps ah. est-ce que da ngeen di dajale son yi ce que parce que j'ai vraiment envie de comprendre 17 morceaux quand même. Euh, pour composer ko quand même ça prend du temps. waaw waaw liggéey la rek liggéey la xam nga su ma xam nga soo xëyee yaay fi toog man su may nelaw sax peut-être maa ngi xalaat son. nga comprendre 17 yooyu noonu dañ ko tànn. ëpp na ay 30 35 dañ tànn 17 ñu génnee ko parce que dafa am benn direction bu ñu bëggoon. Mhm. ñu tànn 17 yooyu noonu mais am nañ yeneen son yu bëri incha allah. léegi lan ak waaw waaw maa la baal. <laughs> maa la baal waaw. non dama jël son son Aminata Ndiaye. Mhm. waaw ma tooñ nga ma benn yoon ma daal di la baal. mais foofu dama si doon expliquer côté xarit quoi nga am benn xarit boo xamante ni mënoo ko bàyyi. mais xam nga ni jikkoom neexoon mais da ngeen di continuer di ànd. di ànd rek voilà parce que le fait que nga bàyyi ko. yow wëy nga kii le fait que le fait nga bàyyi sa xarit. <laughs> léegi genre loolu day am day am. Mm-hmm. parce que le fait que nga bàyyi ko après yow yaa si mujj ñaaw parce que da ngeen màggandoo. mais comprendre nga ko mais tu vis avec da ngay ànd moom. dund ak moom rek moo tax man ko tooñ nga ma benn yoon ma daal di la baal. yow du ngi nii di ànd ak <laughs> sa jikko neexuñu waxtaan bi neexee sama weer yaa ngi <laughs> bëgg a ak moom. ngi dem amoo la ma ma mootoo sawar damay ne ko kaa ñu muutul la ko bokk. nee na day mel bokk. kii nag moo la bëgg. Eh. kii nag moo la bëgg demal nga toog. demal nga toog. allez donc euh, euh, ñu on est mm-hmm. vraiment man kontaan naa ci xale yi. Ah, sama yaay nag woon naa ko julul. bind na léegi message nee na yoonam nekkul ci xiir gi. am na fulla la. ah itam xam nga sama ba bambara la bu rax Sénégal moom métis la dëkku fi maanaam bu ñu doon génne étranger sama yaay la ñuy njëkk a génne delloo ko Mali. elle vient du Mali. elle n'habite pas ce pays étranger Moodu Moodu. sama yaay di immigré fi. ba bambara yo man doomu Moodu Moodu laa de. ñi jógee Guinée ibi fi boutique. sama Mali la jógee ñëw dëkk fi immigré. mu ngi waaw ñun luy suñu yoon ci xiir gi te xam dama ko doon sagal rek di ko may promotion moom jëkkër ji mais comme sa yoon nekkul ci xiir gi xoola sama xaalis laa yor ngay daw yaay sama yaay laa waxal de yaay booy sama ay billet laa yore. xaaral woon ko ko il faut ma. non mu dama koy xamal. dañ lay woowaat rek yaa a xam. dama ko jël dama koy bloqué. yaay booy bori <laughs> yaay booy. sama xaalis laa yor. yaay booy ngay daw xoola mala koy. <laughs> en tout cas euh, on est très content et très fier de toi. lan mooy lan projet yi. instant bi ñu ngi nekk di def euh, promo album bi. Mhm. prévoir nañ def ay événements yu bëri si décembre bi. yom te ni day doon affaire bu mag mais ak euh, Covid bi. dafa xaw a ralentir affaire bëri. rassemblement dañ koy tere. voilà mais instant bi ñu ngi essayé xool solution na la ñuy def ba promo bi gën a jàll. Mhm. ñu xool tamit su affaire bi taxawee. wala ngeen def fii tey léegi concept la bu ñëpp ba mën a def. defee fii tey ci télé bi. waaw bu defee fii tey ñun ñu def fee suba. fee ah, suba waaw waaw. <laughs> <laughs> waaw waaw allez ñu ngi ñëw bàyyi leen nag Amina Poté moom tamit xiiram la yor euh, di ko ci teg ba mu tàng à partir de enfin il est déjà 11h 11h19 on a débordé mais mu ngi ñëw bégal leen euh, ñun defe naa mën nañ ci profito tàggatoo donc album bi actuellement mu ngi disponible fépp ah. waaw disponible na fépp ci plateforme yëpp en plus am na CD yi ku bëgg a CD yi da ngay woote 78 154 12 33 78 154 12 33. voilà donc mu ngoog kontaan nañu Samba Peuzzi ma Samba Peuzzi mooy lan Peuzzi. Mm. ah mais bu ma topp rek. fan nga jógee waaw mën naa ne yàgg na. depuis dëgg naka la. Samba Tine. Samba Tine Tine séeréer. waaw séeréeru fan. Ah, côté euh, côté Pambal. Mm. ah Pambal kon yow kii nga saafeen nga. Eh, mi yàlla la. yéenay wax eh, futum ne. non non waaw kii la ñuy ah, ah. wax. futum na mi nga mi santa. ah mi santa. waaw mi santa du ngeen mi nga <laughs> ah, ok. man bee ma dàqal yitte cas. yitte cas yitte rek loolu waa Morola ñoo <laughs> kuy Mayga même mi way. Mm. sutura. tere Italie. <laughs> non doo doo may ga samba tin mais samba posi posi bi bi daf doon def dañ doon fecc mag yi comme temps comme 2012 ah. comme booy yëpp dañ doon jër ñu defoon posé gang ku si posé. après man may wa dañ doon jër temps jër. Ah, comme booy yëpp rek booy mhm. temps booy yëpp ku nekk jël sa tour yokk si lool mooy commencé rap maay def booy géro mais ñu may wooye lool man pourquoi pas. parce que en plus dafa kii quoi. voilà <laughs> bon ben on est content merci. merci en tout cas d'être passé nous voir ce matin euh, Samba Peuzzi euh, di dañu ñëw ci concert yeeg et puis album bi actuellement mu ngi disponible on finit ak euh, message yi nga xam ne